Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته sante yàlla suñu borom ci bi sallallahu alaihi wasallam sallam nga xam ni gën fii ci Italie moo ñëwoon di partager ak yeen ci li nga xamni ñun ñëpp moom lañu bokk muy senegal di ñaan li may partager mu ag ci ñi nga xamanteni moy ñi nga xam tay ji ñom ñoy yanu rew mi. te dogal yépp jóge suñu borom subhanahu wa taala muy le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye premier ministre am le président Ousmane Sonko mu sell mi nga xam ni moo porté combat ba mu eski ak bépp ministre boo xamante nii ci liggéey bi nga bokk vidéo bi nag dama koy jël ko def di ko jagleen ministre El malik Ndiaye mi nga xamanteni wax deug yalla ak yonent bi moy ki nga xamanteni mom lañu jox lepp lo xamanteni ci mbirum transport bi na mooy ki nga xamante ni moom lay partage vidéo bi ak expertise bi ak xam-xam bi nga xamante ni yàlla def na ko ci ñun ñaar fukki at ak ñaar ñu nekk ci réew tubaab yi di liggéey ci structure di liggéey ci assainissement di liggéey ci routier di liggéey ci bépp signalétique boo xamante ni day nekk ci ci tali ba mën a permettre nit ki muy sécurité boppam ci li nga xamante ni moom lay daw di ci dem li wund loolu nag mooy dañoo nekk ay citoyen nekk ay sénégalais juddoo Sénégal yeroo Sénégal màgge Sénégal di liggéey jotee ñu dem liggéey di jàng jotee ñu dem jàngi bi loolu weesoo suñu borom dimbali ñu ci ak mbaaxam ci yërmandeem ñu jóge ci réewum Sénégal ñëw nekk ci réewu um tubaab bi def ñaar fukki at ak ñaar ndax ba ñuy nekk Sénégal di fa dund di fa liggéey loo xam ne xamuñu ko woon amuñu ci woon xam-xam moo tax loolu mënuñu ci woon a wax bi yàlla defee nag ñu ñëw ci dëkku tubaab bi def fa temps bi nga xamante ni moom laa leen wax nii di liggéey ci lépp loo xamante ni ci développement la mu bokk li nga xamante mu nekk loo xam ne dafa bokk ci dund doomu aadama loolu moo tax tey jii ma ni man Babacar Ndiaye en tant que citoyen bi xeex bi jotee ñu xeex ba yàlla suñu borom may ñu ci ndam te ñaan ndam loolu mu continue ndam ñooñu ndam loolu nag li koy continuer dafa bokk mooy partager te ñi ngay partager ñiy déglu ñiy partager ak ñoom ndax àdduna kenn ku ne dafa am loo moom kenn ku ne dafa am loo xamante sa domaine la kon te partagente rek yàlla na def trouver ay solution définitive yoo xam ne mooy tax suñu askan ñëpp nekk ci jàmm kon li nga indi waxtaan bii may waxtaan ak bépp sénégalais bépp sénégalaise ñi nekk Sénégal ak ñi nga xam partout dans le monde bëgg Sénégal te wara japp ni bis dina ñëw ñu wat Sénégal ak lu mu mënti doon ak lu mu mënti mel ñooñu lay waxal di partager ak ñom vidéo bi bëgg ki nga xamanteni nak moy ministre El malik Ndiaye mi nga xamni ni yor bëpp transport ci Sénégal te am yéene defar Di nag yéene defar boko amé da ngay am ñu la jappalé kon nak man en tant que frère en tant que citoyen xam-xam bi nga xam ni yàlla suñu borom may na ma ko ci li nga xam ni xam naa ko ci li nga xam ni ci développement la ci li nga xam ne luy aar doomu aadama la muy sécurité ak li nga xamante ni mooy tax nit ki di xam ak xam ak moo tax ma ne naa ñëw partagé ak yéen ginnaaw bu nu yàlla suñu borom julliwaat ci yonent bi nga xam ni moo gën ñëpp di ñaanal suñu borom defal jàmm bépp sénégalais ak fépp foo xam ne foofu nga mën a ne ñi ne ci réewum Sénégal ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci bitim réew kon tey jii dama gis ni loo xam ni yàgg nay am Sénégal peut-être ñi fi nekkoon waxoon ak ñoom yombul waaye comme dañoo gis ci sunu président bi nga xamante ni mooy président bépp sénégalais ak ku nangu ak ku bañ ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci réewum jàmbur moom moo wax ni jub jubal jubbanti kon yaakaar naa ni ku am sa xalaat bu rafet boo xamante ni xalaat la boo xam ni rafet naa njot ni lu war a mën a développer Sénégal la du lu war a mën a aar askanu senegal la war nga cee mën a wax ndax damay gis ci année yu mujj yi ay accident yu bari te metti trop di accident yi nga xam da fay am ci Sénégal ma gis ni lu bare bare bari di ci am ñun am nañu lu xamanteni ni xam nañ ci likoy waral ci la bokk lolu motax tay ci mani na partager partagé bima bi accident bi nga xam ni ba Jurbel avant ak Jurbel dem xomu barki dem ba neuf personnes ci li nga xamante nii information yi ma jot wàññeeku nañ ci ma ci gis suma benn xarit suma benn coloré koo xamante ni bu ma gëddamee ba gën a ci Pastef yàlla ak moom la ak ku ñuy wax ay kon ñes muy nongo jóg mu def publication métti lu li nga xam ni am na muy ñooñu nga xam ne dañ cee wàññeeku may jaale famille yooyu di ñaan suñu borom ci mbaaxam ci yërmandeem ca léppam yàlla suñu borom yërëm leen te xaar loolu moo gën a indi lii waaye bu jotoon nañ cee wax jamono ji ci ginnaaw mais tey nag dañ cee bëgg a ñëw gën cee xóotal ma xam ni àdduna bi dafa dépassé fi ñu taxaw di ko fa xaar ben moy le premier ministre El Malick ndjay yow mi nga xamni ya chargé wu engagé wu devant le peuple Sénégal engagé wu ci li nga xamni mom lañu jël jox lako muy sa mérite après combat bi nga xamanteni combat nga ko bu exifi ñu lay ñaanal suñu borom jappalé la dimbali la ar la ba yan bi nga yenu mu oyof ak ñi nga xamanteni ni moom nga bokkal liggéey bi ma bëgg man babakar ndjay nga am ben repère repère am ben seetlu mu jaral la ko ngay dem ci région yi ngay jaar voie normale di xol tali di xool strisce bianche yi nga xamante ni mooy trait bu weex bi nga xam ni mooy délimitation bi nga xamante ni mooy wan nit ki ka fii mooy fi nga war a aw boobu mooy le minimum ci li nga xamante ni moom lay wax ndax bëri na ay zone yoo xamante ni ci Sénégal oto yi bu ñuy daw guddi dañuy làmbatu rek ndax amul benn signalétique boo xamante ni warna lam la mana wan warna lam la mana a indiquer ba tax ngay dawal sa voie normal bobu moy bi nga xamanteni ni gëna moy parce que bi ngeen fi toogee yagul té limay wax ni di ci joxé sama participation di ci joxé xam-xam di ci joxé ben réalité bo xamni mom la dund fi ma nek ñaar fukki at ak ñaar ci réewu tuba bi dafa bok ci lo xamanteni ni ñu dañu def sécurité par la route ci lepp lo xamanteni ci domaine bi nga xamanteni ni lay wax ni kon primo loolu mooy li nga xamante ni war nga ko saytu benn mooy diggante Dakar ba saint diggante dakaar ba Fuuta diggante Dakar ba Kaolack diggante Dakar ba Tamba diggante Dakar ba Mbuur diggante dakaar Joal bëgg naa ngay dem ci tali yi am personne yor sa particulier ànd ak ñi nga war a àndal

ut ñoo xamante ni dañoo spécialisé ñu defal lecture yooyu tali yi nga xamante ni amul lépp ñu def ko ci boobu mooy li nga xamante ni au début la parce que li may wax ni projet procédure la boo xamante ni bu fekkente ni appliqué ngeen ko suñu borom mën na leen a dimbali ci accident yu baree bari yi nga xamante ni day am au Sénégal te li koy indi yépp képp ku ci am seetlu mooy oto yi dañuy daw ba daje te oto yi dañuy daw ba daje. oto yi nag pour nga éliminer pour nga dindi accident yi nga xamante ni dafay am te oto yi di daje amaana ki nga xaman kenn ki ci ñoom ñaar amaana kenn ki nelawul am na kenn ki mooy nelaw fekk si kii nelaw mu dal si kawam bu ko defee mu lor ñu baree bari bu ñu ñëwee nag li ñuy jël tënk ko mooy ndogalug yàlla la d'accord yàlla mooy buur mooy borom danoo sàkk sàkk lépp nag mais àdduna lu nekk rek dafa am ay saytu lu nekk dafa am ay proposition yoo xam ne da koy jël bala muy ñëw bu ko defee bu ñëwee di nga xam ne proposition yooyu jëloon nga ko bu desee fekk dina am loo xam ne la ko war a dimbali ndax waxoon naa ko ci benn live ci nguuru Macky Sall ma leen autoroute autoroute la autoroute ñi nga xam ni am nañu possibilité ñoom ñooy circuler ci autoroute dangay ngay dagg ticket fay normal kooku tali boobu c'est normal dafa war a nekk en règle parce que pagamento la da ngay fay mais dafa war a am ay tali yoo xamante ni askan wi ñoo ko moom la ñuy wax superstrada ak autostrada autostrada péage la superstrada nag mooy li nga xamante ni askan wi ñoo ko moom muy tali bu jóge Dakar dem Ziguinchor tali bu jóge Dakar dem Saint-Louis nekk strada normal mu nekk tali bu baax am espace de trafic boo xamante ni tali bu nekk ci Sénégal war nañu mën a am espace de trafic boo xamante ni mooy nekk ci digg bi espace de trafic bi nag matière biñ ko mën a defaree bari na bu la neexee mën nga ko defar ay guarde-reille mu nekk benn barrière de sécurité boo xamante ni dina permettre nit ki bu tëddee bu nelawee bu nelawee du eski ci ki nga xamante ni moo nelawul man nga ko defar barrière boobu bu barrière boobu day difficile la mën na par ciment mu nekk préfabriqué mu nekk ay ciment la tali yi séparé séparé déjà am nañu possibilité am tali en actif nañu tali yi espace de trafic defar des des des garde-rails yoo xamante ni sécuriser ki nga xamanteni ni tawal dawal te mooy sécuriser ki nga xamanteni ni ki nga xamanteni ni nek ci talib ak ñi nga xamni ne voyage goudi ak bëccëg ndax accident bi am jurben nga xamni ni accident bi amone fani ci ginnaw lepp accident bo ci xol benn ben benn benn manière bi la kii day ñew fekk ki wacc waaw dal ci kaw mbëkk ko wala ci wàcc voie dal ci garab bi mbëkk kon nañu fexé askan bi ñu jàppale leen ci tal yi nga xamanteni déjà sont activés muy Dakar Saint-Louis Dakar Mbour muy Dakar Ziguinchor Dakar Tamba nañu fexe loolu procédure la bo xamanteni dañ ko wara def pour def délimitation tali yi mu am benn garde boo xam ne ci digg bi lay nekk bu la neexee day nekk ciment mu ne nuisesto bu fekkente ni mu loolu day métti mu nekk ay garde rey yoo xamante ni am na ay spécialistes yoo xamante ni ñoom monter la ko manière boo xamante ni kenn du am succès pour mën a daw day dal ci beneen oto parce que tant que changé wuñu système bi day métti ci Sénégalais yi. Les sénégalais voyagent dañuy voyage dañuy voyage pour que nga avons am accès pour defar nañu préparé préparer la ferrovia La ndax ferrovia baax ci train yi dafa baax Dakar Saint-Louis pour train dëkk bu nekk

te kuy dawal te gisoo benn guide bi lay guide ci tali bi ngay dawal da ngay mel ni yow lu ñuul rek ngay gis say faar demewul noonu bu la mbaam traversé doo ko gis bu la fas traversé doo gis nga dal ci kawam njaboot yi gaañu ci mu nekk loo xam ne dafay metti loolu la mooy li nga xam ni d'après accident yi nga xam ne jot nañ koo gis ci moment yu mujj yi di ñaanal ñi képp ko ci wàññeeku suñu borom yërëm la te xare la àjjana mais nu ñu jël suñuy maytuwaay yi nga xam day am pour fexe ba kenn waxul accident du am ba buy amé itam mu am ci manière bo xamanteni sabotage dina mën am mais accident bu amé ci yenn zone yi ñaari camions yi dajé wala ñaari particulier yi dajé balaa am sabotage vraiment ñu bari nañ ci ñak seen bakkan té loolu wax dëgg yalla ak bi lu ñu war wax la mais dal li ëpp solo té ëpp solo maa ngi koy lancé

say ñi topp ci sa ginnaaw àndal ak ñoom nga def au tour du Sénégal topp ci tali yi fu amul très yu weex yi estrichet bianco yi nga taxaw ci defar ko parce que di nga gis ay zone yoo xam ne day am travaux te zone yu am travaux au Sénégal du am estrichet bianco yi ñaar yu ci bari strisha jallo yi yu jaune yi moom moo ci war a nekk mais du ci nekk mooy wan chauffeur bi ni fii dafa am ay travaux yu fi am boo fi ñëwee ba egsi fi war nga def benn ralentir boo xamante ni parce que fii liggéey moo fi am kon loolu mooy le première chose boo xamante ni moom nga war a saytu ba pare nag door a wax ak ñi nga xamante ni dañuy wàcc yoon ñu jël leen teg leen ci yoon mais tant que yoon wi teguwul ci yoon pour boo bëggee jël ñi teg leen ci yoon day nekk lu ndax strisha bi ko dafa nek lo xamanteni dafa am solo te monde bi ak doudan yi nga xamni dañuy nek ci bi dekk bi te duñu am ay signalétique yo xamni moy mooy wane ne fii la nga xam nit day daw ben velocité bi ñew dal ci kawam man na dal ci kawam saran fek ñu nek mu dal seen kaw kon nanu biñu wax sénégalais chauffeur ak emprunté yek ñi jang dawal nañu ñëk def mooy xoolaat tali yi autoroute autoroute la kooku ki ko moom da nga koy fay mais sénégalais yi ñi liggéey di fay impôt di fay demoon ñii dëkk Ziguinchor ñii dëkk Kédougou ñii dëkk Fatick ñii dëkk Tamba ñii dëkk fu ne ñooñu war nañoo mën a am ay tali yoo xamante ni impôt bi ñuy fay tax yi ñuy fay loolu mooy li nga xamante ni mooy seen fierté ni imagine toi nga war a jóge fu mel ni Dakar war a dem Tambacounda ngay daw ci tali boo xamante ni guddi la doo gis doo gis trait bu weex bi ci digg tali bi nga xam ne tey jii yow lépp looy dawal ci kumpa ngay dawal distance bi nga am bariwul bu la mbaam traversé fas traversé la ak loo mënti dawal mënti dawal boo chargé ak benn vélo vélocita bi ngay daw da ngay dal ci koom amaana di nga rey mbaam mi wala nga rey fas wi wala nga rey ay doomu aadama yoo xamante nii lépp rek prévenir ko moo koy indi loolu daal laa woon tant que citoyen en tant que sénégalais naa ko partagé ak régime bi nga xamante ni tey suñ borom da leen fee teg ñu am lu ñu woote mooy jub jubante jubal kon lii nga xamante ni moom la ñu wax mu bokk ci li nga xamante ni day dimbali nit ñi pour accident yi nga xam ni dafay am bari màggal Tuubaa bi mu jub si kon nanu bàyyiwaat xel tali yi nga xam ni amul istrisha bianko yi tali yi nga xamante ni am na zone yoo xam dafa am ay travaux ñu defar istri strisé jàll yi muy jaune muy nit ki ni ay travaux yu fi nek bu ko nit ñi di di respecté ñi nga xamanteni ni chauffeur yi nga xamanteni ni ñoy yor di def yenn chargement yu nekkul ci yor bu ñu parce accident dina nga ñëw gis bi la bi Dakar la joggé doon dem mu ñëw ba Saint-Louis def accident nga oto bi surchargement bi mu def oto bi nekkul en règle mu wóor la ni diggante Ndakaaru ak Saint-Louis ak Saint-Louis romb na plus de quatre cinq ba dix montage te benn montage gis nañu ko mais dañ leen bàyyi ñu dem ci kenn sago de ce fait nag bu dara amee nag boobaa ki jël responsabilité bi mooy ñi nga xamante ni ñuy autorité yi kon nag ñooñu nañu bàyyi xel lii nga xam ni man moom lay partagé ak ñoom ndax dañuy dund ci dëkk boo xamante ni lépp dafa nekk ci aw yoon dañuy dund ci dëkk boo xamante ni problème yu bëri yi nga xamante ni dafay am ñu koy gis signalétique dafa am solo mooy carte signal dafa am solo ci tali signal mooy dimbali nit ki ba toujours lu bëree bëri da nga koy may te mone bi toll na foo xamante ni dafa développé ci lu bëri kon nanu bàyyi xel loolu am na ci ay strisé yoo xamante ni plan la yoo xam ne dafa am anti rumeur yoo xamante ni tey jii booy nelaw ba daw ba teg sa pono oto rek dina def benn bruit boo xamante ni yow la nga yeewu xam ne yow mii kat yaa ngi wàcc yoon wi loolu mooy délimitation yi nga xam ne moo war a am ci tali yi te ñun suñu réew ci zone yu baree baree baree bare dañ koo négliger te négligence boobu noonu baaxul loolu daal mooy li nga xam ni laa ne woon naa ko partagé ak yéen di len ñaanal jamm di len wax aljuma mubarak di ñaan suñu borom mu dolli jàmm ñaan suñu borom mu doli salam di ñaan magal gi ñu jupsi nga xamanteni ni di ñaan suñu borom lepp lu fa def jamm suñu borom nang ko ko demit ñu def ndank safar yi ñi daw ndank kep ku fa demit nga xam la la fa yóbbu muy magal gi nga màggal ñibbi ci wat di ñaan le président Bassirou jomay fay ak premier ministre président Ousmane Sonko mu sell ñi nga xam ni ginnaaw yàlla war nañ koo sant ndax moo porté combat bu mu esquivé ñaan suñu borom kàttanal leen seen diggante bi suñu mu musal leen ci lépp loo xam ni luy lore la di ñaan suñu borom sàmm leen ñaan sénégalais yi nga xamante ni wax dëgg yàlla dañoo xeexoon ba dëkk ba ba muy métti ñaan suñu borom jàppale leen ba ñu soppi Sénégal ci anam bi nga xamante ni moom moo gën waaye li may wax ni daal am na solo te bokk na ci li nga xam ni day dimbali Sénégalais yi pour accident yi nga xam ni dafay tegaloo di bari te bu amee ministre bi ñëw député bi ñëw ku nekk ñëw mais am na ay solution définitive solution définitive yi nag mooy mooy li nga xamante ni moom laa partage ak yéen ndax dañ koy dund ci réewu tubaab yi di ko gis accident dafiy am mais nag am na yenn zaaru accident yoo xamante ni oto yi daw ba daj ba mbëkkante yooyu moom Afrique dong la dese te nag lu mën a dañ la kon nañu fexe ba loolu ñu dindi ko xool na la def ba changer méthode bi ndax système nag boo koy changer da ngay changer lépp bu ko defee loolu mooy li nga xam ni mooy tax fi nga bëgg àgg nga àgg fa di leen siyaar di ñaanal Assane Diagne bu ORS Monde ak képp koo xamante ni membre nga ci suñ borom defal leen jàmm di partage bii nga xam ne moom ngeen di ci àddina bi suñ borom fay leen ko yiw ndax lu baax la lu baax nag suñu borom moo ko mu wàcce ko ci jaam yi kon daal nañ ko gis lu baax na ko partagé sa morom te xam ni lu baax mooy li am solo kon yàlla suñ borom defal na jàmm defal leen ko jàppal leen sàmm leen ci bàkki Cheikh Khadim jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.